bonjour bienvenue et bon réveil à tous les téléspectateurs de la 2STV ñu ngi leen di bu baax a baax amaan euh, comme ni ñu koy defee saa su ne du lundi au vendredi saa su waxtu wi jotee ñu ànd ak yéen ci seen réveil matinal d'information Matin Bonheur la seule émission qui vous donne une bonne raison de vous réveiller de bonne heure et aujourd'hui nous avons un donc comme euh, chaque jour euh, d'ailleurs fas yéene fee Abdoulaye Mboup donc moom mi ngi nekk euh, euh, administrateur général bu euh, bi ko en même temps président Jaar Jaar jeunesse active républicaine dinañ daal di taxaw ci mouvement boobu lu ko waral ak surtout waxtaan itam jëmale ko ci wàllum entrepreneuriat ak engagement politique de la jeunesse ñu ngi lay nuyu Abdoulaye di la dalal ci plateau bi. soxna Astou maa ngi lay fay maa ngi kontaan lool ñëw tey ci 2STV yi di nuyu sa téléspectateurs yëpp. di ñu seetaan fépp ci àdduna. alors donc ci kanam tuuti dinañu leeral mouvement boobu nga xam ni moo di euh, jaar jaar jeunesse active républicaine lan moo ko tax a jóg ak surtout euh, tey ci wàllum entrepreneuriat ak euh, jeunesse et engagement politique loolu itam dina bokk ci li nga xam ni dinañ ko fi waxtaanee ci kanam tuuti lay doon xibaar yi ci li si gën a fës bokk ci àndu gësam daal di taxawal décrété 96 heures. de grève lu ko waral rek mooy mbirum recensement yi nga xamante ni moom lañ doon revendiquer ay weer a ngi nii mais ba tey mënuñu fexe ba am ci lu leen neex loolu moo tax nag dañu fa yéene rek banque seen ay loxo et surtout euh, ci euh, file ki fan dinañ fas yéene rek dak lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllum programme élargi de vaccination daal di delloo lépp loo xamante ni rek euh, jumtukaay la yu jëm ci wàllu programme boobu noonu ngir daal di rek wan état bi ni li ñu leen waxoon wala boog li ñu bëgg ci ay revendication defalul leen ko surtout lu jëm ci seen ay wàllum recensement ñu wax itam ci. di euh, dossier bi nga xamante ni moo jëm ci cour de comptes euh, procureur daal di nay rek euh, activer li nga xamante ni moom moo di dossier boobu ci booram en tout cas loolu mooy itam bokk na ci xibaar yi nga xamante ni fës na ci ci ci tay ji waaye itam fële ca Turquie ak Syrie démb dégg ngeen bu baax a baax. xibaar yi nga xam ne moo fës mu tiis lool mu di ab euh, yëngu-yëngu boo xamante ni suuf sa moo fa yëngu donc mu nekk séisme magnitude 7,8 daal di causé nag lu toll euh, ci euh, téeméer lu toll du moins si ñetti junni ci ay doomu aadama maanaam lu ëpp 3000 morts moo am jamono ji foofu le diggante Syrie ak Turquie mu nekk nag lu tiis loo xamante ni dafa tax état bu Turquie dafa daal di rek juróom-ñaari fan yoo xamante xamante ni deuil national la ngir fàttaliku ak euh, surtout bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ndax loolu euh, doon na lu tiis loo xamante ni euh, ba Chypre sax dañ ko yéeg ak Liban dañu yéeg yëngu-yëngu suuf boobu nga xamante ni moom moo am foofule ca Turquie ak Syrie ñu daal di taxaw ci yennikaay yi xooli ci gën fës ànd si ak régie xool tey journaux yi lan lañu ñu daal di dégtal à la une. Euh, du jour bu paree rek ñu ànd ci ak yéen donc euh, journaux yi voilà ñu dem xool li nga xam ni moom moo gën a fës ci yéenekaay yi euh, tey jii ci mardi 7 février 2022 li quotidien lañ koy dooree rapport Fonds Force Covid-19 bi la daal di xëyee tey ak parquet mi nga xamante ni dafa daal di rek activer division des investigations criminelles ngir ñu daal di rek door euh, l'enquête yi képp koo xamante ni rek euh, cité nañ la si wala sa responsabilité daal na ci engagé dañ la fas yéene rek euh, traduire devant les juridictions loolu mooy kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko di wax itam di am na téeméeri plainte collective yoo xamante ni daal dinañ koy déposé euh, démb ci tablu yoon loolu mooy li nga xam ni bokk na ci lii lii quotidien fësal ci xëtam mu njëkk le quotidien moom ci loolu it la daal di taxaw muy yoon bi ñu yoon euh, li nga xam ne moo di koppar yu jëmoon ci Covid 19 bi compte à rebours ndax parquet du procureur moom daal dinay rekk confier enquête bi du division des investigations criminelles société civile yi itam moom lu mu bëgg rekk mooy ñu sañ saytu saytu bu am solo te am euh, rigueur ak indépendance ci boobu les dossiers ñu daal di ko ci. taxawal gannaaw le quotidien dañuy xool Sud Quotidien moom dafa ñëw ci rapport Cour des comptes yu Fonds Force Covid 19 yi ñuy doon waxtaanee léegi ak euh, parquet mi nga xamante ni daal di nay rek euh, dugg ci mbir mi activé dikk ngir rek ñu daal di door enquête préliminaire yi nga xam ni moo si jëm tax ñu daal di jox euh, kàddu bi société civile bi ku ci mel ni Birahim Seck bu Forum Civil. daal di wax ne ñoom fas yéene nañoo continuer seen liggéey ba lépp daal di leer mu njaay Cissé itam bu collectif suñuy milliards du rees di wax rek ni euh, décision bu procureur boobu euh, dafa euh, c'est un pas important maanaam benn pas boo xamante ni bu am solo la loo xam ni daal di nañ ko ci teg muy jéego ci boobulee dossier Tribune Quotidien moom dafa ñëw ci ba tey ci rapport boobu di wax rek ni ay ministre ak i DAGE fas yéene leen déglu fële ca dikk loolu nag mooy li fa ñu fas yéene assister gannaaw bi nga xamante ni procureur daal di lay activé euh, dikk di division des investigations criminelles ci wàllum yorin bu ñu euh, yoree woon koppar yi jëmoon ci euh, lii di xeexu mbas mi fii ci biir Sénégal Walf Quotidien moom it ci loolu la daal di taxaw mu di wàllum yorinu euh, koppar yu jëmoon ci force Covid 19 bi loolu nag tax lii di division des investigations criminelles fas yéene rek euh, enquête mbir mi lu toll ci ñaari jàpp fukki atu prison. mën nañ ko euh, jàpp mën nañ jàpp ni mën na dal ci kaw ñi nga xamante ne ñoom lañ ci tuumaal forum civil moom ay xaaram ay attentam daal di nañu koy souligner itam ci yéenekaay bi di Walf Quotidien bés bi le jour ñëw ci dossier boobu di rapport Cour de comptes di wax né daal nañ taxawal eh, ticket dem dikk maanaam eh, ticket bi nga xamante ni moom moo leen di yóbbu dikk ñooñ nga xam ne dañ leen ci cité wala bokk seen responsabilité eh, bokk ci ni ñu yoree lii di fond force Covid procureur daal di instruire dikk ngir rek mu daal di door enquête yi nga xamante ni amul benn délai ak itam suspicion yi nga xamante ni yenn ci fonctionnaires yi ñu ngi koy teg seen kaw loolu yëpp nag mu ngi ci biir yéenekaay bi enquête daal di ñëw ci violence politique. politique nga xam ni dañ koy seetlu souvent te am ñoo xamante ni ñoom ñoo ciy loru ñooñu sax la ñu daal di euh, jox kàddu gi ñu wax euh, ñi surtout ñi nga xam ni ñoom ñoo yor station euh, d'essence yeeg yu demee noonu ñoom it saa su manifestation amee ak ay violence ñoom ñoo ciy gën a loru loo tax ñu daal di def ci ab dossier tàllal leen si seen jox leen seen jël seen kàddu l'évidence ñëw ci teg bi ñu teg loxo yenn ci ay militant wu parti PASTEF mu mel ni daal dañu bëgg a faagaagal ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko à travers ses arrestations tout azimut loolu l'évidence daal di xamle à la une du jour critique ñëw ci dikk mi nga xamante ni jamono ji mi ngi ci tànku ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, ñoom ñooy sàcc yi nga xamante ni ñoo nekk ci euh, au sommet de l'État au sommet de la République noonu la ko critique quotidien waxee donc euh, jamono ji ab enquête daal dinay tijjeeku Vox Populi ñëw ci moom it procureur bi nga xamante ni tijji na euh, ñu rek daal di enquête ñi nga xamante ni ñoom ñoo euh, laale ci lu ni mel la traque confier au limiers donc ñi nga xam ñoom ñoo féete dikk takk der yi ñoom ñoo fas yéene enquête euh, lu ni mel les échos ñëw ci premier face à face bi nga xam ni am na diggante Modou ak Boy Niang ñaari fan la fas ñaareelu face à face. Euh, Boy Niang 2 voilà du moins dimanche la fas yéene am Pikine impose ses conditions pour yi participer maanaam ñoom nga xamante ni ñoom ñoo féete ak Boy Niang teg nañ seen ay conditions nii bu ñu ko defee ñu daal di euh, def face boobu lu ko may mooy duñ ci euh, participer loolu nag les ko fësal na ko fësal itam complexe Cheikh Ahmadul Khadim bu Touba yi nga xam ne daal di nañ rek inauguré nañ ko inauguré démb Serigne Mountakha ferme encore de prison loolu mooy les échos lu mu daal di xamle ci euh, xëtam bu jëkk libération dafa ñëw ci lu doy waar loo xamante ni dafa am euh, ci euh, benn restaurant bu ñu tuddee al marinas donc ab mbiru mërs la daal moo tukkee ci loolu donc euh, lieu bi sax daanaka moom lañ ni moom moo fàtt ki nga xamante ni mi ngi wuyoo ci turu H H Annie donc ay coup de gourde daal la ko daal di dóor ba daal di euh, ba mu daal di faatu moom nag ba ko enquêteurs yi euh, joxe kàddu dafa dal di rek euh, avoué lu ni mel wax itam ni supporté wul woon kàddu yi nga xamante ni kooku mu faat moom la doon daal di rek yóbbul di ko wax ki nga xam ni moom moo di soxnaam. loolu mooy li nga xam ne moom moo waral jëye boobu nga xam ni am na ci ab restaurant Libération moom moo ci indi ab euh, leeral loolu moo nekkoon li gënoon fas ci yéenekaay yi ñu doon leen ko euh, dégtal ñu daal di dooru waxtaan bi euh, balaa sax loolu Abdoulaye du ñàkk am nga loo bëgg sànni ci li nga xam ni moom mooy journaux yi tey lu ñu xëyee revue des titres bi waaw li ñu xëyee am na solo parce que dama jàpp ne alali réew mi dañ ko war a ñàkk ñoo ko parce que taxul mu am lool donc ñu ci rawatina li nga xamante ni mooy fond 19 bi nga xamante ni at yi ñoo ko dajale su kilifa yu ko ci mel ni Serigne Mountakha Bassirou dugal ci participation bu solo parce que ñu dajale ko pour man bu ñu ko dénkee ñi nga xamante ni yaakaar nañ ne ay éclaireur mi maanaam dañu war a leeral donc suñu nekkee dañ ko war ci yoon donc bu ñu ko tegul ci yoon man dama kontaan bu baax li procureur bi auto autosaisir euh, jël mbir mi en charge pour yoon xamante ni li leen ko dikkee dañoo wàccoon yoon am na solo euh, donc euh, tey maa ngi ko doon wax dañu fa yéene waxtaan ni mbirum entrepreneuriat ak euh, lu jëm ci jeunesse ak engagement politique daanaka sax loolu la ñuy commencé ndax da ngeen taxawal mouvement bu tudd jaar jaar muy jeunesse active républicaine lan moo waral mouvement boobu ngeen mettre en place. waaw mouvement bi nag dañu ko créer ay ndaw ñoo ko créer mu nekk ay entrepreneur ay entrepreneur ñoo ko créer am ay primo votants am ay ndaw yoo xamante ni ñoom ñu ngi liggéey actuellement nekk rek ci ay sociétés en tant qu'employeur donc ñoom ñoo boole ñu ñu ñu créer ko pour rappeler je fus le président des mille étudiants de ENSUP Afrique mm-hmm. donc euh, maa ngi profité ci occasion bi d'ailleurs pour nuyu le le directeur général euh, Ibrahima Mbengue mi nga xamante ni bokk na ci ji nga xamante ni ñoo ñuy accompagner aussi ba tey ci ci lépp lu ñuy def du ñu ci conseiller du ñu ci orienter mm-hmm. voilà donc mouvement bi nag li ko tax a jëkk seen un mouvement citoyen boo xamante ni dañu bëgg a participer activement au développement de ce pays muy Sénégal bi ñu bokk suñu ëllëgi réew wala suñu doxini réew ñun bëgguñ ci nekk ay téléspectateurs dañ ci bëgg a nekk ay spectateurs dañ ci bëgg a nekk ay acteurs di ci participer activement donc loolu moom moo tax bi ñuy waxtaanee ak euh, ñi ma àndal ñu créer jeunesse active républicaine donc bi ñu ko créer yàlla dogal ci mbaaxam ñu ñu jiital ma ci. ma nekk le président donc suñu rôle aujourd'hui mooy jàppale jeunes yi ci formation parce que am na ñoo xamante ni aujourd'hui bëgg nañu orienté wu leen université wala amuñu tey jii les moyen parce que université aussi am na lu mu lu mu laaj tuuti donc ñun dañ leen di jàppale may leen ay bourses entières suñ leen mayee ay bourses entières mais gratuitement nag duñ joxe dara. Hmm. parce que am na ay agence yu créé yu créé fii euh, ay nit créé ko pour ñu may xale bi bourse dañ koy laaj dix mille wala vingt mille jeunesse active républicaine tey jii. soo fa ñëwee bëgg mu bourse parce que je suis en part euh, j'ai des part nous avons des partenaire in Sub Afrique ci la bokk IMD ci la bokk ESM ci la bokk. noo noo leen def ba tissé tissé genre lien yooyu xeetu partenariat yooyu ba nga xamante ni mën ngeen offrir bourse à des gens te duñu fay dara. waaw parce que lépp mu ngi dépendre ci sa degré d' engagement. pour man engagement bi dafa am solo parce que suñu réew euh, ndaw yi waruñu ko waruñu toog rek. nekk ci ay téléspectateurs dañ ci war a nekk ay acteurs euh, ñun jóg nañu dem waxtaan ak ñi moom école yooyu noonu ñu leen kat ñun ndaw lañ ñoo xamante ni dañu bëgg jàppale ñi nga xamante ni tey ji ñu ngi dëkk ba Tamba ñu ngi dëkk ba Saldé ñu ngi am bac ñëw Dakar bëgg nañ def par exemple nekk nañ département anglais mais bëgg nañ def des études en finance par exemple amuñu les moyens aujourd'hui xamuñu fan lañ war a jaar ñun bu ñu intégré suñu mouvement ñun fekk nekk nañ déjà en partenariat avec les de formation dañ leen di wutal bourse ñu dem jàng nga xam ne inscription rek la ñuy fay négocier nañ également ak école yi ba nga xam ne bourse euh, li ñu war a fay muy inscription bi kese mën nañ leen ko étaler sur 10 mois sur euh, ça dépend 12 mois ñu étaler leen ko nga xam ne seen tenue bi ñu sol la ñuy jënd joxe une participation ci inscription bi après ñu nekk à l'aise di jàng te duñ mm-hmm. fay duñ fay parce que inscrit négocier nañ bourse entière ba pare mm-hmm. donc loolu aussi ñu ngi ci dox ñi nga xamante ni ay couches vulnérables lañu li ñu def tey mooy dañ leen di may ce qu'on appelle les bourses sociales ce n'est pas une bourse entière mais c'est mais mais boobu euh, lan mooy critère yi déjà parce que souvent euh, comme ay mouvement la ak yu demee noonu. Mhm. souvent euh, amuñu ne xëy na boo bokkul ci tele parti wak mhm. boo bokkul fii wala boo amul yenn aspiration yi nii. Mhm. yenn xeetu privilège yi doo ko jot. est-ce que dafa am ay critères yoo xamante ni assez strict pour mën a am am bénéficier wu ci ci bourse yi. voilà ñun nag ay sénégalais lañu pour man ce qui le plus important c' est le c' Sénégal donc euh, du du du parti politique ngay bokk pour mën a intégrer suñu mouvement parce que mouvement bi c' est euh, un mouvement citoyen. boo xamante ni mouvement politique. ah. ma ne du mouvement politique non du est un mouvement citoyen boo xamante ni yéen ñu ngi waxtaan ak euh, bureau bi membre yëpp xam naa du ñàkk fii ak fan. dinañu prononcé wu parce que comme ni ma la ko waxee sànq sama njëlbeenu kàddu euh, suñu destiné réew ñun acteur lañ ci bëgg a nekk xam naa dinañu organiser wu ñu xool euh, am na ñu ñuy waxtaanal ñu xool fan lañu war a féete ci élection yi ñu jëm incha allahu taala. Mm-hmm. kon kon daal yéen dans l' avenir mën ngeen dugg soobu ci politique bi. waaw bien sûr est que loolu du yàkk seen seen seen domaine de de prédilection wala un peu seen objectif. waaw xam nga Sénégal ki ci gën. kooku la jeunesse active républicaine àndal donc loolu nag ñu ngi koy waxtaan waxtaanu biir la bu ñuy waxtaan actuellement donc dinañ ci prononcé wu dans les jours à dinañ def conférence de presse waxtaan ci ak askanu Sénégal wax leen ne ñun suñu féete fii la kii lañ jàpp ne tey jii moom moo gën ci suñu destiné wu réew parce que ñun ay ndaw lañ yoo xamante ni jàpp nañ ne réew mi kenn waruñu ko gën a bëgg kenn waruñu ko gën a protéger parce que sama papa sama yaay keneen ak keneen ñoom ay mag lañu tey waaye ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy ndaw ñi ñii di jàng ñii di entreprendre ñii toll ci soog a am liggéey ñun ñoo war a téye mi ñoŋ ko pour man ëllëg réew mi kenn waruñu ciy jiitu ci naka lañ ko war a doxalee ak kan lañ ci war a jiital loolu dinañ ci prononcé wu dans les jours à dinañ def conférence de presse dinañ leen invité yéen ñëpp ngeen ñëw ñu wax ci wax kan lañ nar a àndal incha allahu taala ci élection 2024 yii di ñëw ndax kat il faut ñun tamit dinañ joxe suñu position dinañ ci dox dinañ ci wax incha allahu taala mais entrepreneuriat fii ci biir Sénégal yow naka nga ko gisee est-ce que euh, euh, gis nga ni jeunes yi ñoom ñu ngi ci soobu bu baax si oui également est-ce que mi ngi am rentabilité wala mi ngi ñoom feeñ ci seen ci seen dundin surtout seen nekkit ci société bi. waaw euh, entrepreneuriat nag yombul ci réew mi ñu nekk muy Sénégal ci continent bi ñu nekk sax muy Afrique il faut beaucoup de courage mais nag comme ni ko tubaab di waxee à cœur vaillant rien n'est impossible il faut être courageux. parce que les débuts son très difficiles maintenant yow yaa koy gëm nga nga bañ a bàyyi nga jàpp mu dëgër xam ne lii c'est un choix parce que àdduna lépp choix la te man dama gëm ne doomu aadama bi ci dundam dafa war a toujours muy am le choix donc choix boobu nag boo boo choisiré de lii laa bëgg a def tey donc pour man danga war a def sa kéemtu lay kàttan ba ba ba rey ki sa bopp muy metti mu voilà muy tàng muy taw da ci war a jàpp mooy bu dëgër ba nga atteindre sa objectif parce que yàlla nee na inna allaha ma sabirin ma way muy kat yi àndal donc il faut être nga jàpp mu dëgër ku ci mën a doon ci ci ñu ñuy seetaan tous les débuts les débuts sont sont très difficiles c'est pas du tout évident surtout man nga xamante ni je travaillais dans une multinationale de la place euh, su nekkul ki nga baal ma tudd ko muy Bolloré transport logistique euh, au début j'ai été à l'aéroport au niveau du transit aérien après ñu promouvoir ma la direction commerciale donc fa laa nekkoon foofu foog naa kuy liggéey Bolloré bu demee direction commercial foog naa xalaat jóge fa moom dootoo ko def. Mm-hmm. ci ñu bëree bëri. donc yàlla dogal bi ñu fa yegsee ma toog xam ne kat euh, fi mu toll nii li ma bëgg dëgg dëgg il faut que ma opérer un changement pour attendre un autre niveau donc changement bi nag rupture bi li mu waroon doon mooy tey jii arrêté nekk en employeur pour nekk entrepreneur donc jéem nañu ko nag boobu léegi suñ borom mu ciy suturaat. alhamdulilahi rabil alamin mais mécanisme de de financement yi nga xamante ne dañ ko fi tegal ñi nga xam ni euh, ay entrepreneur lañu et tout euh, est-ce que euh, gis nga ni c'est efficace yu fi nga xamante ni état bu Sénégal moo fi teg waaw xam nga xam nga une politique peut être efficace mais une politique parfaite n'existe pas donc tout le temps dafay am importance ñu war ko gën a améliorer parce que pour man l'épanouissement social et professionnel des jeunes dans ce pays Euh, war nañ ci gën a taxawaat war nañ leen ci gën a jàppalewaat war nañ leen gën a accompagner war nañ leen gën a jege état war na leen gën a bàyyi xel naam ay jéego am na ci bàyyi xel si si si ban fànn exactement. waaw mais taxawu taxawu taxawu taxawu gis naa ñu ngi góorgóorlu gis naa ñu taxawal euh, benn. y' y' a euh. la gis nañ DER/FJ bi nga xamante ni euh, ça privilégie des femmes et les jeunes. Mm-hmm. gis nañ fi également lu ci mel ni Prodac ak yeneen programme yoo xamante ni pour ndaw yi la donc loolu bu taxawee ba pare ñu ne nañ leen gën a gestu. Mm-hmm. responsabilité bi wala problème bi c'est dû au niveau de de qui des jeunes ou bien de de de l'État. oui euh, la responsabilité par exemple euh, je peux dire aujourd'hui qu'elle est partagée parce que ndaw ñi defuñu effort pour dem vers l'information parce que qu'il y a euh, il faut pour yenn affaires yi pour nga mën ci bénéficier wu aujourd'hui il faut nga dem vers l'information donc état bi aussi pour man communication bi dafa des donte mbir maa ngi fi mais communication bi xaw na des tuuti ñun li ñu concerné ci fonds propre la ñu la ñu démarré donc organiser wu nañu ba am ñu ñu àndal ci bi ñu démarré ñu jàppale ñu ñu nekk suñu yoon di ko di ko dox. Mm. donc taxawal suñu yëf di soox di soox di soox donc noonu daal la ñu la ñu doxee mais ñun amuñu accompagnement état bi ñu démarré donc euh, dañu góor góorlu rek ci lu ñu jotoon dajale denc ko ci bi ñuy liggéey ak euh, ñeneen ñu ñu àndal ñu taxawal suñu yëf nekk ci di góorgóorlu ndànk-ndànk. Mm-hmm. alors euh, ñu ñu ñu taxaw ci wàllum engagement. Euh, politique euh, tey jamono ji noo gisee taxawaayu ndaw yi ci wàllum politique bi. waaw ndaw ñi euh, actuellement dama gis ne politique bi dafa mel ne dafa dafa xew parce que dama gis TikTok bi dama gis Facebook bi parce que réseau yëpp dañ koy xool ñoom ñëpp ku nekk am nga sa moo sa kàddu waaye li ma gën a gis mooy tey jii dafa am beneen taxaw seetlu bu ñu ci waroon am parce que da ngay déglu da ngay dégg ay discours yu xaw a doy waar tuuti léeg-léeg te dama jàpp ne droit ak devoir nekkul benn mais nous de nous avons l'obligation aujourd'hui de protéger sa pays parce que am na ay kàddu yoo xamante ni yaa ngi koy dégg muy jib mën na taal réew mi te je pense que ñun li nga xamante ni ñooy ndaw yi Sénégal dañu war a am taxawaay bu am solo nu devons protéger ce pays nu avons l'obligation de protéger ce pays nous avons l'obligation de respecter les institutions de ce pays pour man c'est très très très important parce que avant et après tout nous sommes des républicains donc dañu war a tënku ci ci loi dañ war a tënku ci réglement dañ war a tënku ci respect des institutions bokk na li gën a tax sax ma sa wax ci invitation bi pour lancer un pour lancer un message de paix à la jeunesse de mon pays ñu ànd ak dal nañu ànd ak xel bañ a ànd ak xol. mais lan moo indi selon vous euh, cette agitation la de, de des jeunes parce que euh, xam nañ ni jeunes yi euh, peut-être ñoom ñu ci bëri ñi ngi concentré wu en tout cas ci li nga xam ne moo di seen liggéey du moment où lu ñuy wax lu bëri moom mooy dëkk bi amul liggéey ak yu demee noonu. donc tey bu ñu demee ba bàyyi li leen gën a itteel soit ñuy dugg ci politique wala mu jaral leen benn engagement boo xamante ni xëy na ça peut euh, mener même à une agitation bu ñu mënul contrôler. il y a forcément quelque chose euh, wala une source wala un soubassement selon vous euh, nan la ñu def ba arriver à ce stade. waaw xam nga euh, dëkk bi amut liggéey moom man des fois dama koy dégg ndaw ñi di ko wax. Hmm. naam dëgg la am na lu ci lu ciy dëgg mais pour man euh, doomu aadama bi da nga war a wéet gore wéetali gore wéetali ko gore donc ñàkk liggéey warul mën a tax nga brutal ñàkk liggéey warul mën a tax nga war a dajale ay pneu pour taal réew mi. parce que notre identité première c'est que nous somme de Sénégalais mais nous devons être des citoyens du monde il faut que ñu am benn ouverture d'esprit il faut que ñu jàkkaarloog àdduna Mark Zuckerberg bu muy créer Facebook c'était pour l'Amérique après c'est ñun ñëpp ku ci nekk ci àdduna bi pratiquement am na ñu am nañu Facebook parce que damay gis souvent ñi lay wax na la dëkk bi amul liggéey ñoom ñooy def ay challenge TikTok je n'ai rien contre les di fecc parce que di challenge bi mooy fecci ñu fecci ñu def nii ñu def nii bi moo xew pour man tey ji temps boobu noonu on devait on devait penser ak créer des champion ci élevage ay champion ci agriculture pour man challenge bi tey jii foofu la war a nekk di challenge di former xale yi wala xale yi organiser wu demande des formations ci neurosciences ci intelligence artificielle ñu fexe créer des champion ci domaine yépp pour man aujourd'hui challenge bi foofu la nekk waaye challenge bi warul nekk Euh, gatsa gatsa challenge bi warul nekk nañu taal fii nañu def nii que diw fii la pour man challenge bi warul nekk loolu challenge bi li mu war a nekk mooy li nga xamante ni moom la ñëpp woote avant Macky Sall di jël réew mi ba léegi Serigne Sidi Mokhtar waxoon ko ne tënku leen ci yar tënku leen ci dal tënku leen ci li ma wax sànq muy le respect des institutions <laughs> président Macky déggoon na ko yaakaar naa ci jamono boobu demoon nag campagne nekk bokkul woon ci ñu nekkoon place de l'Obélisque chaque jour ni ñoom foofu la ñuy toog parce que yar googu noonu ak teggi ni moom moo jëmbat moom lañ moom la mag yi jëmbat fii ci Sénégal donc ndaw ñi. donc si je comprends bien yow d'accord ci xeetu appel à euh, à la résistance yi nga xamante ne euh, ñu ngi koy def euh, de la part de de de ak ñi nga xamante ni moom mooy logique bi ñuy demee léegi. Mhm. si wàllum xeex ak jàkkaarloog régime bi nga xamante ni moom moo fi nekk. yow d'accord d'accord ci principe boobu. waaw man astu xam nga des fois damay dégg ñaari discours ma xaw ma jaaxal ñii bu ñu jëlee kàddu dañuy wax ne euh, kii dafa war a dem wuy ji su wuy jiwul dinañ ko jëli euh, mu dégg ci yeneen discours yu gën a yéeme que dinañ jël ay ndaw indi fii dinañ def nii dinañ def naa pour man kàddu yooyu rafetul beneen mbir bi mooy réew mi dañ koy taal pour man réewu maam El Hadj bi réewu Maam Baye Niass réewu Cheikh Ahmad Bamba ëpp naa taal ëpp eh, que am na ku sañ a réew mi dañ koy taal. waaw mais parce que loolu la ñuy wax loolu laa man loolu dama koy dégg. Hmm. dama koy dégg de ñuy wax ne non dinañ réew mi dañuy koy def nii dañuy def nii dañu taal fii dañuy pour man réew mi war waruñu ko taal pour defaraat pour man révolution mën na ñàkk pour ñu defaraat réew mi parce que dama gëm ne li ma gëm laay wax. révolution mooy nguur mooy xe waa xeex bi ñuy wax mën na ñàkk hmm. dama gëm ne. yàlla moom mooy joxe nguur. révolution wala résistance. waaw révolution dama koy dégg damay dégg résistance ñaari kàddu yooyu yëpp dama koy dégg. yow d'accord ci benn. waaw man ci li ma gëm. Hmm. li ma gëm ah mooy sénégalais yi ki ñu jàppale moom moo gën ci destiné wu réew mi 2024 sénégalais yi ñu ngi seen bët di xool ak réseaux sociaux yi ñu ngi ak observé bu baax de très près ñu intéressé wul woon ci politique sax ñu ngi ciy commencé intéressé intéressé wu parce que destiné wu réew mi dafa am solo astu gis nga Sénégal gii ñu nekkee. dañ ko war a protéger bu baax a baax a baax a baax éviter yenn discours yi haine amul solo jalousie amul solo nguur suñu borom moom moo koy joxe ku ko neex moom moo koy rocc ci ku ko neex te nee su ma koy rocc encore paaka ñaari bor lay nekk waaye man maa koy jox ku ko neex ku gëm ne suñu borom mooy dogal nguur yàlla moo ko yore moom moo koy jox ku ko neex te bi mu lay teg ci place bi doomu aadama du fexe lu tax loolu du am parce que moom dina fekk yàlla suñu borom concocté ne plan ba jaaralee la fu mu la war a jaaralee ba nga yegg fi nga jëm ki ki ñu yaakaar ne moo fi moo fi moo fi moo fi war a moo gën ci réew mi de 2024 d'ailleurs ñun dinañ ci prononcé wu incha allahu taala on est en train de discuter jàpp nañ ne kooku yàlla suñ borom tànn na ko ba pare te kenn mënul ci moom dara beneen biir bi encore ñun ay ndaw lañu Sénégal am na pétrole am na gaz. Mm-hmm. sous région bi agité na keroog gis nañ li gis nañ li xew ci at yi yëpp gis nañ li xew Mali gis nañ li xew. Euh, Euh, Guinée gis nañ li xew Burkina Faso gis nañ li xew entre RDC ak euh, Rwanda sous-région bi agité na trop Sénégal am na da am na dal waaye réew yooyu dañu wër donc ñun waruñu taal benn daay. mais mais yaakaaroon ni cette question là du du troisième mandat. Mhm. dina nekk loo xam ni risque la d'instabilité. ci ci ci dëkk bi parce que boo xoolee yu ci bëri euh, si sous région bi ay militaires ñoom ñoo ko daal di contrôler te loolu dafa am fu mu jógee voilà euh, bokk na ci mbirum euh, briguer troisième mandat dëkk bi jaxasoo ak ci demee noonu mm-hmm. ak ay coup d'état tey yow la yéen surtout laay wax sax seen mouvement bi nga xam moom ngeen fi moom ngeen fi teg de jeunesse active active républicaine mm-hmm. lan mooy seen position si troisième candidature bi nga xam ni ñu ngi koy prêter un peu. Mhm. jiitum réew mi. waaw xam nga xam nga loolu question la boo xamante ni euh, ma njiitum réew mi wax ci ne moom da ko bëgg. ay nit ak ñoom ñooy ay nitam. waa ñoo koy wax nañ ba bu ko bëggul dinañ ko ci pousse. waaw mais mënuñu ko xam nga xam nga président Macky Sall nag moom ku ko xam mën a observer tuuti jàpp naa ne moom nit ku am fayda te dama jàpp ne le dernier mot ne revient pas au président Macky le dernier mot revient au conseil constitutionnel. donc ñun aussi ñu ngi organiser wu dinañ dinañ déglu dinañ observer dinañu xool parce que nag nu sommes présents dans les quarante six départements du Sénégal donc ñu ngi organiser wu bu baax a baax a baax a baax d'ailleurs lancement bu mouvement bi lancement mouvement national bi ñu ngi ko war a def euh, d'ici fin mai début euh, juin incha allahu taala. donc yéen amoon leen ci position sans que le président se prononce. non dinañ ci dinañ ci xam nga xam nga loolu waxtaan la bu sori boo xamante ni ñu ngi koy def. ñu ngi ciy waxtaan question bi jib na donc au niveau du bureau on est en train discuter euh, avec les membres ñu ngi waxtaan bu baax a baax a baax dinañ am position bu am solo boo xamante ni dinañu ko jël pour ànd ak kañ lañ yaakaar ne suñu destiné wu réew foofu la gis nga asto dama jàpp ne rek dañ war a ko encore une fois ñun waa Sénégal au respect des institutions gis nga suñu institutions yi nii il faut ñu gëm leen. yéen daal loolu mooy seen. seen seen objectif daal pour ñu respecter li nga xam ne ñoom lañ fi teg institution yi. waaw institution dañ koy waaye tekkiwul ne aussi dañ wax ne dañ ànd ak kenn tekkiwul loolu. dama ne suñu ëllëgu réew ñun dinañ ci nekk ay acteurs dinañ jël position bu am am solo incha allahu taala tàllal suñu loxo wax na ñun jeunesse active républicaine ci si départements yi suñu représentant yépp taxaw temm ñu ne kii la ñu àndal te foog naa li ñu yor ci primo votant représenté na minimum. deux centres de vote yoo xamante ni bu ñu taxawee ki ñu àndal dana xam ne am na deux centres de vote. mais donc ñi composé mouvement bi yëpp. Mhm. Euh, amaguñu benn orientation ci wàllum politique. Euh, est-ce que loolu tey boo leen demee ba benn jamono ngeen bëgg ni kii la ñuy àndal. du mhm. indi benn division quand parce que yaakaar naa ni ku ci nekk yaa ngi adhéré comme pour le moment vous êtes apolitique mm-hmm. ku ci nekk am nga libre choix d'adhérer wala nga bokk ci benn parti wala di mm-hmm. militer pour pour un parti quelconque waaw effectivement boo leen demee ba ci biir bëgg ni kii la ñuy àndal y a pas de risque de de de ou bien de de division non non loolu du ci am parce que ànd bi ñu ànd dafa génnul ñett yi moo tax dafa génnul dëgg dafa génnul yar dafa génnul yàlla àndu gor ak bu ñuy ànd ñu nekk ay ndaw yoo xamante ni ànd bu sincère la ñuy ànd ànd bu sérieux ànd bo ànd boo xamante ni jàppalante moo ko la solidarité te comme li ko yonent xam Muhammad di waxee nee na solidarité fu mu am naataange dafay am naataange nag tekkiwul xaalis jàmm sax naataange la donc euh, jàpp naa ni loolu ci waxtaan bi ñuy waxtaan parce que am na yow yaa eh, dama ci mënagul sori rek waaye am na ku ñuy ruumandaat di ko waxtaan li ñun kat ah jàpp nañ ne kii kat gën na ci réew mais mënaguma ci prononcé wu parce que dinañ ci gën a waxtaan donc ma profité aussi ci occasion maa ngi lancé un message au président Macky Sall nga xamante ni moom moo nekk à la destinée de ce moom la fi yàlla teg mu mu gën a am yërmande waaw gën a am yërmande c'est c'est très très important ah parce que accélérateur bi mën na ko teg foo xamante nii rek waaw ah, mën na mun na mën na mun na oto bi mën naa kii te te su ko neexee mun na ko teggi ndànk. d'accord ñëpp nekk ci jàmm. Abdoulaye Mboup euh, am na solo ñu bàyyi la nga tàggoo téléspectateurs yi. Astou maa ngi kontaan lool ci ñëw ci émission bi tey di nuyu téléspectateurs yi ñu doon seetaan yépp euh, di leen wax ne leen euh, jeunesse active républicaine mu ngi fii pour adhérer carte membre kese ngay jënd boo jëndee carte membre am na lu fi nekk ci loo xamante ni ñu ngi koy organiser. muy sax euh, gën na sori formation bourse si financement yi ñu nekk di ko concocter pour nekk en partenariat avec des banques ñu ñuy accompagner pour les jeunes entrepreneurs yi nga xamante ni dañu am ay projet ñu ngi en partenariat également avec les banques de la place publicité bi lay bañ a def moo tax du ma leen tudd donc euh, incha allahu taala euh, ñu ñu ngi fi di di di di góorgóorlu pour nekk ay nit yoo xamante ni suñu destiné wu réew ñun dañ ciy nekk ay acteur moo tax ñu tuddee ko jeunesse active républicaine. parce que pour man ndaw dafa war a am jaar-jaar. c' est très important la trentaine ne est pas encore révolue moi le président man mi nga xamante ni man maa nekk président wu mouvement bi mais euh, dañu gëm ne dañ ko teel a gëm nag que ni ndaw dafa war a am jaar-jaar ci dundam jaar-jaar ci dundam nag mooy fexe ba tey jii dañ la daan fayal jàng tey bu facture courant bi ñëwee sa kër nga ne ah andi leen ma fay ko donc man loolu jaar-jaar donc maa ngi woo aussi encore une fois. état du Sénégal mu mu gën a jàppale ndaw ñi. ñi nga xamante ni dañu bëgg a entreprendre ma am message encore bu may lancer à la jeunesse mooy nañuy teel a xëy ñi nga xamante ni ñoom ñi ay entrepreneur lañu ñi nga xamante ni ay euh, ay employé lañu ci ay entreprise nañu teel a xëy parce que dama amoon benn patron boo xam ne tubaab la woon. Mm. daf ma doon wax ne ma euh, venir en retard c'est c'est démarrer da wax équipe bi parce que man bokkoon naa ci ñi nga xamante daan naa góorgóorlu bay teel xëy. dafa doon wax ne venir en retard c'est démarrer une mauvaise journée et puis nañu jàpp bañ a bàyyi jàpp xëcc bu daggul dikk góor góorgóorlu ñu téye bu dëgër xam ne euh, lépp loo gëm rek suñu borom yàgg yàgg dina la ci fekk si dina lu jàppale. merci beaucoup. am na solo merci Abdoulaye Mboup euh, di fàttali ne moo nekk euh, président bu jeunesse active républicaine nekk mouvement boo xam ne donc dafa juddu bu yàggul dara di bokk rek en tout cas ci. li nga xam ni moom la réew mi di doxee suuf ci seen loxo surtout nag di jàppale li nga xam ni ñoom ñoo di ndaw ñi ak surtout seen côté euh, liggéey ak ay bourses di la remercier bu baax ci sa teewaay la seconde partie c'est tout de suite dañ leen di daal di sax dégtal euh, élément bu nga xam ni dañ ko ànd ak euh, ONG Otra Africa di Souleymane Diallo seen président bi waxtaan ak Thérèse Sambou ci phénomène immigration clandestine bi nga xam ne mu ngi commencé di jugaat d'ailleurs dañu daal di gis ne benn euh, pirogue bu am une trentaine de Sénégalais moom moo daal di atterrir fële euh, accosté ci île des Canaries euh, aux îles Canaries donc loolu tax na muy alerter bu baax a baax ndax moom li mu ci gis mooy bu ñu moytuwul phénomène bi dina jugaat te bu jugaatee du baax ci ndawu Sénégal yi ñu dem xooli élément boobu. muy xew-xew bi nga xamante ni dafa dolleeku rekk di fësal. tolluwaay lii di mbëkk mi nag ci àdduna wër ngir képp ak njeexital bi mu mun a amee nag fii ci Sénégal la ab bato nag bu yëpp lu ko juróom fukki ak juróom-ñett ci ay doomi aadama fanweer yi bàyyeekoo Sénégal nag ñoom nañ jàpp nag ca îles Canaries taxi nag ba lii di njiitu ONG Otra Africa delluwaat rek di artu te it yëgle itam ni ci fan yi néew rek. foofee dinañ fa jàppaati yeneen i vague ndaxte rek jamono ji dañ fa amal ay coppite. mooy ni que du tënk xale yi moo mooy tere gaal yi génn et que li bees mooy ni que bon temps yi nag wàññeeku na gaal yi doon génn wàññeeku na loolu il faut ñu nangu ko mais leneen li bees li si rax mooy ni que yoon bi ñu daan jël pour dem Canarias léegi dañ ko changé léegi dañu jëlaat beneen yoon bu bees beneen trajectoire bu bees la ñu créé par rapport ak ligne boobu donc nag loolu ñu tënk ko pour xamal ni que euh, dëgg la bii. am na gaal bu fa yegg ay doomu Afrique ñoo fa nekk am na ay doomu sénégalais yu si bokk mais nañu jàpp ni que si fan yii di ñëw si weer yi di ñëw gaal yi dañ génnaat lu bëri bëri parce que changé nañu yoon bi ñu daan jël. ñeneen dee ñu génn dañu jàppaat yeneen gaal si immigration clandestine bi te yeneen gaal dina yegg euh, Canarias. gannaaw nag bu mu ñaawloo politique bi nga xamante ni réew mi nag def na ko jëm nag ci wàllu mbëkk mi moom mi nag. njiitu ONG Otra Africa moo ngi ñaax rek lii di nguur gi nag mu daal day taxaw ñi nga xamante ni matal nañu bépp condition ngir ami visa Schengen. dem bi ak dikk bi ala kulli alin xale yi dañu dem et que sunu njiit yi nañu xool si accord yi ñuy am ak réewu tugal yi boo xoolee tey pour nga am rendez-vous rek pour nga déposer visa rek problème la waxatuma nag visa si koo xam ne déjà euh, directeur de société la ñii ay commerçant lañ ñi ay porteur d'affaires lañ ñii ay étudiant lañu bu ñu leen facilité wul visa bi amuñu beneen ñuy jël ki nga xam ne yor na possibilité voyager sax léegi dañ ko ko jafeel waxuma nag ki nga xam ne amul possibilité bi ba pare yaakaar ni su demee foofu day tekki donc loolu il faudrait que ñu xool ban politique équilibre la ñu mën a def par rapport ak sunu naataangoo yi nga xam ne ñoo nekk tugal parce que waa tugal lu mu métti métti dañu soxla main d'œuvre bi donc xale yi suñu demee am na fenn fu ñuy jàpp donc ñu xool nañ lañ leen di encadrer ba nga xam ne dem bi day nekk dem de de dem bu lew muy ñaax itam lii di nguur Sénégal nag jëm ci convention ak accord yi nga xamante ni da koy xaatimal ak dëkk yooyee mu fexe si rek ba lii di yombal nag ndaw yi ñu tukki mu daal di cay ami ndaxte rek gis na ni lii di main d'œuvre nag dëkk yooyee soxla nañ ko bu baax. ñu wax itam euh, ci université bi nga xamante ni complexe la bu Cheikh Ahmadoul Khadim dañ ko inauguré démb ci juróom benn fan ci weeru février bi ñu nekk loolu nag nekk euh, ay weeri weer euh, daanaka euh, cinquante mois yoo xamante ni dañ ko doon tabax ci ndigalu ki nga xamante ni moom moo di xalif général di Mouride di Serigne Mountakha Mbacké mu nekk université boo xamante ni bu ñu xaymaa liñ ci def ci koppar ngir tabax ko mi ngi toll ci fanweer ak juróom ñaar ci ay millions yoo xamante ni cotisation yi daanaka lu ci ëpp ci taalibe yi la jóge mu nekk nag benn modèle économique boo xamante ni daanaka ñëpp ko rafetlu ndax. démb rek jiitum réew mi daal di na koy fësal ci kàddoom wax itam ne dina leen jàppale bu baax a baax ci euh, mouvance boobu nga xamante ni ci la nekk le 5 décembre la ñu euh, tàmbali tabax bi 2018 euh, mu daal di nag pare démb mu nekk complexe bu rëy a rëy boo xamante ni li mu fas yéene rek accueillir ci ay ndaw Sénégal foofu la ci Touba dina mën a takku loolu ñu dem xool Pape Sayer Mbaye mi nga xam ni dafa teewoon démb ci bésub inauguration bi CCAK complexe Cheikhul Khadim daara ju kawe ji Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou Naal ñu ubbi ko ci altine ji ci teewaayu mbooloo mu takku waaye ci kilifteefu xalifa général des Mourides. mboolem bokki taalib yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax gis nañ yéene ji nga xam ne am ngeen ko ak Pastef bu wér bi nga xam ne am ngeen ko ak it ju rëy ji nga xam ne am ngeen ànd gi ngeen ko ànd ak nun tàmbali liggéey bi ba mu agsi fii tey loolu amel nañ leen ci cant ku rëy. président makisal Sall àndandoo ak jëwriñ yu bëri ci gouvernement bi fësal yéeneem ngir lu gën a jëmmal daara ju kawe ji. lii nga xam ne xëy na gouvernement la waroon tegu kon boo ko yëkkatee def ko sa liggéeyu bopp def ci sa alalu bopp. def ci alalu mbokk taalibe yi faw gouvernement bi feelu la ci yenn mbir yi mooy lépp lu jëm ci yoon yi woote naa léegi laata may ñëw fii ak benn weer dinañ mën defar tali incha allah ci biir ak li ci biti defar assainissement yeggali école de formation professionnelle waaye it waxtaan nañu ak sëñ Ahmadou Badawi ci sa ndigal nan la gouvernement bi di liggéey ak complexe bi ngir ñu jàppale leen ci charge yi ndax université lu diis la. wàllu courant bi daara ji di jëfandikoo njiitu réew mi ne. ba ci centrale solaire bi nga xam ni war na mën a tax université bi moomal boppam courant bañ a fay courant fas yéene nañ la ci jàppale ba nga xam ni loolu it dana nekk euh, ay ngëneel ci ni université bi war a doxee ak. bëpp xeetu subvention ngir jàppale leen ci doxalinu université bi. moom jiitu réew mi ne daara ji. dana am lu bees lu mu indi ci Sénégal loo xam ne suñuy université amuñu ko mooy ni ñuy tàggatee ndaw ñi ci worma ci yar ci diine ak ci fonk sa bopp fonk sa kilifa loolu université bi dina ko indil Sénégal te yaakaar naa lu am am solo sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiru am mbégte lool ci taxawaay daara ji laata muy soññewaat ngir kenn ku ci ne gën cee dugal loxoom woote bi waa association Nuuru Daarayni Touba ca kanam tànxam lu wunu ko ci saa si lanu génne téeméeri million ngir waat ko ci liggéey bi ci fàttali bëri na ci ay kuréel ak mbootaayu kenn ku ci nekk dugal nga ci sa loxo daara ji njëg li mi ngi toll ci fanweer ak juróom-ñaari milliards ci sunu koppar la ci ëpp doon lu taalibe yi joxe. merci beaucoup Pape Saer Mbaye donc loolu moo doon euh, élément yi ñu doon leen dégtal ci tay ji mais nag ñu tëj sans fàttali leen ni tey la ñuy fàttaliku génnub àdduna bu Cheikh Anta Diop euh, fanweeri at ak juróom-ñaar gannaaw bu mu euh, génnee àdduna moom mi nga xamante ni euh, borom xam-xam bu mag la moom lañu ñu tuddee sax université Cheikh Anta Diop waaye terewul ba tey dañuy rek bàyyi xel ni dañu ñu waroon enseigner ay œuvre am ci université yeeg école yi ak bërëbu jàngalekaay dafa des lu bëree bëri loolu constat la boo xamante ni daanaka. ñu bëri euh, d'accord nañ ci euh, di fàttali rek ni mi ngi juddoo foofu la ca Ceytu donc c'était en 29 décembre 1923 euh, donc moom Cheikh Anta Diop at bu nekk sax daanaka dañ koy màggal rawatina foofu nga xamante ni fa la juddoo ca Diourbel ceytu euh, du ñàkk ñu indi leen ci ab jàngat bu am solo tey ci suñu ay euh, jotaayu xibaar ngeen mën ko suivre 19h ak 20h incha allah merci beaucoup à vous qui nous suivez depuis ce matin merci également à l'équipe technique Pam May Mané Sow di leen jaajëfal yéen téléspectateurs yi di leen jox rendez-vous. demain incha allah ci beneen euh, numéro bu Matin Bonheur excellente journée à vous